dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëyandoo jàngoroy coronavirus ji nga xam ne mooy lëmbaaje àdduna bi jamono ji nag maanaam njombe girawali gu rëy soo moytuwulee ji dina ci daal di dugg yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal la ñu lu toll si juróom benn ci ay nit jamono ji am nañu ko yokk ci ñeent ñi ko amoon muy fukk ci ay nit maanaam ñu faj si ñaar mu des juróom ñett nit ñoo xamante ni si Sénégal maanaam mën nañoo wax ne ame nañu jàngoroy coronavirus ji journal groupe promo consulting bi mu ñu xamal la ñu moodu Moodu bi nga xam ne maanaam moo indi jàngoroy coronavirus ji ci Touba daat nay wàll nag juróom ci seenu njaboota mu nekk nag juróom benn maanaam ñu amee jàngoroy coronavirus ji ñoo xam ne ñoo dëkk Touba te ñi nga xamante ni ñoo ko fa amee na kenn wàllu leen ko kudd Moodu Moodu bi maanaam moo def njombe journal bi nee na lu toll si juróom-ñaar fukk ak benn ci ay nit ñoo xam ne jamono ji dañu leen isolé maanaam dañu leen a ber Le Quotidien mu ñu xamal lan ñu contact au ñu leen waxee nag na leen juróom-ñaar fukk benn ñi nga xam ne ber nañu leen bis bu ñu leen waxee ne leen kenn sa ñoom wala ñaar am nañu jàng jàngoroy coronavirus ji maanaam bu mu leen bett yéen a kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb jël xëlimama ne en tout cas li am ba des mooy jàngoroy coronavirus ji xeex bi dañu ko gën a war a taral maanaam jéego yi dañu ko war a gën a baral libération yéen a kaay mu ñu xamal lan ñu moodu moodu bi nga xamante ni moo indi jàngoroy coronavirus ji ci Touba maanaam def na njombe ndax ñaari soxnaam yi ñaari jabaram yépp wàll na leen wàll na doomam wàll rakkam bu jigéen wàll am bindaandam lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñett seenu njaboot jamono ji dañu leen a quarantaine yéen a kaay gi mu nañ lu toll toll ci deux cent millions ngir nag dugal ko ci lu jëm ci xeex jàngoroy coronavirus ji ba pare nag yëkkati ay kàddu wax mboolem taalibe yi nag ñu wàññi déplacement yi Touba ñoo ngi déglu nag nguurug Sénégal ci lu jëm ci rassemblement yi direct news na jamono ji nag est sëkk est sëkk maanaam ñu daal di reporter dakkal li nga xamante ni mooy Kazu Rajab gi wàcc yéen kaay gi mu ñu xamal ñu en tout cas li am ba des daal maanaam yeneen contamination maanaam jamono ji nag xel daan na say ñaaw Sénégal mooy réew mi nag ëpp coronavirus ci Afrique de l'Ouest ma ngi ci las ngi ci maa ngi ci réew mi quotidien maa ngi ci l'observateur yéen a kaay gi di source mu ñu xamalaan ñu Touba nag maanaam fa ñu doon xaar Serigne Bassirou Abdou Khadre ak déclaration bi maanaam mu wax ci nag ci xew-xewu diine yi ak rassemblement yi moom mu dikk ak 200 millions yéen a kaay gi de le quotidien mu ñu xamalaan ñu jàngoroy coronavirus ji jamono ji nag jaxase na lépp ndax li nga xam ne mooy xew-xewu diine yi maanaam ñoo ngi siy xalaat màkk ak ren gi tamit maanaam ñoom bind nañu ab lettre Macky Sall te soo m ajug màkk du ama juróomi kaay xam ne confirmé nañ ko sa Touba enquête yéen a kaay ne bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxantee dëgg jàngoroy coronavirus ci jamono ji ci Sénégal maanaam mbir mi ma ngi compliqué mbir mi ma ngi compliqué yéen a kaay gii di libération mu ñu xam la ñu nag moo ne day am na beneenub sénégalais boo xam ne jóge na ci réewum Italie nee na cëpp lay ci réewum Sénégal waaye nag ñoo ngi koy càmbara yéen gi kaay gii di grand place mu ñu xam la ñu Seydi Gassama nag yëkkati na ay kàddu wax na ay dëggam nee na Macky Sall moo war a am fulla am fayda wax ak kilifa diine maanaam ñu nag tere li nga xamante ni mooy rassemblement yi ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal la ñu Moustapha Diakhaté ak Seydou Gassama ñoo bokk gisin ñoom la gis daal mooy maanaam kazu rajab gi ak daaka bu Medina ñu daal di kay dakkal yéen a kaay gi di suddi ko di cee mu ñu xamal ñu dëgg gi kay mooy jamono ji nag maanaam jàngoroy coronavirus ji ci mbir mi ma ngay law mbir mi ma ngi yaatoo yéen a kaay gi di l'observateur mu ñu xamal ñu jàngoroy coronavirus ji maanaam ma ngi def njombe ndax mboole moodu moodu yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew jamono ji nag soo muytulee dootuñu yónnee ab dërëm seenu njaboot gi nekk ci réewum Sénégal ndax liggéeyatuñu journal bi di grand place ñu fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall la mu xam le nee na màkk tëj nañ seeni buntu gëstu feebar bi ñëpp lay laal Macky Sall nee na nuyoo bi nañu ko bàyyee bu ñu munte ñàkk nuyoo maanaam ñu nuyoo ak i tànk yéen a kaay a kaay ne mu ñu xamal ñu situation d'urgence la nekk jamono ji ndax jàngoroy coronavirus ji maanaam ma ngi gën di law yéen a kaay gi da la mu ñu xamalaan ñu jamono ji maanaam jàngoroy coronavirus ji daanay lëmbaaje Touba jaxase na Touba laas yéene kaay mu ñu xamalaan ñu Touba nag jamono ji mooy gox bi ëpp coronavirus ci Sénégal yéene kaay gi di Sud mu ñu xamalaan ñu Touba askan wi nga xam ne maanaam ñoo fa nekk nelawutuñu ba yàndoor maanaam si njàq rek tiis la ñu nekk yéene kaay gi di laas mu ñu xamalaan ñu waa France ñoom tiim ñoo ngi jël seeni matukaay maanaam tëj nañu école ya tëj nañu université ya yéene kaay gi di Rewmi Quotidien na mbir mi daal lenn rek moo koy waaxa ci diggante Sénégal ak bi ak conseil présidentiel bi nee nañu lu toll si juróom benn ci ay déggoo maanaam daat nañu koy xaatim waaye nag lépp loo xam ne jëm na ci wàllum sàcc bant yi senegal ak Gambie jël nañu si seeni matukaay yéen kaay gii di réew mi quotidien ak l'observateur mu ñu xamal nañu Mamadou Diop ISEC maanaam fanaan na guddeem gu njëkk sa kasu bu rëbës la ñu koy toppee maanaam mooy nax xale bu jigéen bu ndaw ab parental ba tëddee ko ba mu jëlee fa ëmb yéen gi nee na soo moytule nag li des ci ak dundam lépp dañ ko koy tëcc yéen kaay groupe Promo Consulting bi mu ñu xamal nañu benn ne jabarub imaam la ñu fekk maanaam mu xaru ce Linguère yéen a kaay gii di sunu lamb ne Alioune Sarr mi nga xamante ni moo jiite CNG moom nag ndax du tekki ndombal tànkam ndax jamono ji ñi ko ŋàññi daat nañuy bari lool la stade yéen a kaay ne coronavirus ji maanaam mi ngi lëmbaaje àdduna bi bëri na ay xew-xew yoo xam ne waroon naa am ci mbirum tàggat yaram moo xam football la moo xam basket la jamono ji maanaam dañu koo dakkal ndax bëri nañu yëngutu ci wàllum tàggat yaram ñoo xam ne dañoo amee jàngoroy coronavirus ji